waaleykum rahmatullah barakaatu xay babal de moo ñëwaat ci beneen vidéo tey spaghetti lañuy togg spaghetti ou viande poulet mooy ginaar ginaar lañuy jël daggate ko daal di togg suñu spaghetti spaghetti bu jaar yoon bu neex macha allah bu ànd ak ay légumes euh, léegi dañuy ñëw commencé ñu daal di togg suñu spaghetti léegi viande euh, viande baa ngi nii viande poulet ginaar laa jël raxas ko ba mu set daggate ko. moom laa daggate nii dagg yu yem gis ngeen dagg yi dagg yu yem laa ko dagg macha allah waaw bu la neexee mën nga ko def yu rëy man yu yem laa ko def nii léegi dañuy ñëw kontine daal di togg suñu spaghetti macha allah gis ngeen dagg yi moom laa leen di yoon nii mais macha allah raxas naa ko ba mu set dagg naa ko mu ngi noonu léegi day am euh, spaghetti bii nii. paquet spaget bu mag moom laaj jël macha allah léegi euh, léegi euh, kii nu mu nokkos bi ciy dem day am soble poivron kaane ginger laaj day am persil chinois persil simple day am euh, oignon macha allah moom nokkos bi noonu léegi day am xorom poobar am naa fi sama benn concombre ak ñetti tomate boobu ci décoration bi la jëm day am benn sachet tomate ah, huile d'olive euh, resto léegi lii nii pomme kii laa ci dagg ni supame laa dagg ak chou euh, moom laa dagg ba mu sew nii dama ko ci sote pour xale mën a am ci euh, kii bi macha allah léegi lii benn carotte laa fi ràppe nii moom tamit ci togg bi la jëm donc léegi dañuy commencer ci bismillah rahmaani rahim teg naa sama cin léegi damay ñëw daal di commencer incha allah huile d'olive lay jël daal di def lu yem waaw ku nekk diwlin boo am rek jëlal diwlin boo am baax na boo am rek baax na jëlal boobu man huile d'olive la am moom lay utiliser léegi damay jël benn soble daggate ko dag sew ma ko sote ci diw bi duma xaar diw bi tàng dama koy kii rek sote ci soble si ba tey soble eh, diwlin bi buy tàng fur soble bi mën a doorewaale a doore gis ngeen soble si tey doore doore na ni macha allah léegi antaan damay jël ñaari doomu laaj moom lay dagg frej noonu ba mu sew ruuj moom lay frej noonu ci kaw ginaar gi comme ginaar la te xam ngeen ginaar moom mooy loolu togg ko moom du yomb foog nga mariner koo defar ko ay affaire mun a mun a neex bu baax a baax macha allah bu doon yàpp la tamit bu la neexee mën nga ko def nii mais yàpp moom moo tane ginaar ginaar moom moo gën a naxaree togg ko euh, yàpp donc damay dagate kii ñaari kii yooyu ñaari doomu laaj yi ak benn kaani sufiya Sansevia guubu neex la am macha allah guubu neex a neex man moom mënuma togg sans kaane Sansevia te damay def tuuti vinaigre pour marinaat bi donc def xorom léegi damay def poobar yëpp ci marinaat bi léegi damay def resto lay def noonu waaw pour mariner ko incha allah. léegi en attendant ñu nekk ci marinade bi ba tey gis ngeen soble saa ngi noonu doore na léegi damay mariner euh, saaf directement dama koy mariner saaf ko directement donc noonu lay demee bu la neexee tamit mën nga ko mariner nga bàyyi ko lu yàgg bala ngay commencer fekk mariner nga ko pare mais lii ne pour vidéo bi moom moo tax ma mariner ko instant bi pour ngeen gis yëpp lépp daal day neex lépp ay neex macha allah léegi sote naa kii bi. dawal bi waaw moom lay saaf nii damay xaar mu dama koy saaf ba mu maron ba mu doore ma doog a sote leneen incha allah di leen nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen bu baax di leen ñaan ngeen abonné ci seen bi partagé ci seeni xarit yëpp macha allah léegi nokkos bi moom lay ñëw kii nii moom lay ñëw mixé ba mu mokk waaw gis ngeen macha allah moom la ñuy ba mu mokk nii tamaate bi bu la neexee mën nga ko jàmb à part mais bu la neexee tamit mën nga ko mixé waale ba tey day gën a yombal togg bi rek day gën a yombal liggéey bi bu la neexee man nga jënd tamaate tomate am na benn potu tamaate yi ñuy jaay mille francs ci Auchan bi macha allah boobu tamit comme tamaate pure la rek boobu tamit dafa neex. te moom yomb na mais man dama jël kii bi nii rek tamaate yi nii moom may gënal yooyu waaw léegi mixé naa ba pare léegi damay ñëw daal di sote kii bi nu mu tuddati euh, nokkos bi gis ngeen léegi ginaar gi ñor na waaw gis ngeen dagg wi ñor na doore na macha allah rafet na booy bëgg dee instant bi mu ngi gilli fii yëpp léegi nokkos bi moom lay jël daal di sote ci ndawal bi nii ci ginaar gi nii dañuy am spaghetti bu neex spaghetti au viande poulet macha allah bu neex a neex a neex moom lañuy am ni ku bëgg mën nga essayer recette bi xool recette bu facile la te noonu la neexee tamit mën nga ko tegal say mën nga ko tegal famille macha allah mu léegi dañuy ba tey nokkos bi moom lay sote noonu nokkos bi lay sote noonu léegi ma sote nokkos bi ba pare ma jël sachet tomate ma daal di ko ci def moom tamit macha allah léegi ça dépend yow li ngay togg lu bu dee lu bëri la wala lii dangay dolli say ingrédient ko man li ma def nii danga koy dool li nga double ko bu fekkee yow li ngay togg moo ëpp man li may togg nii waaw comme man benn paquet lay togg moo tax ma koy yemale ci. ingrédients yi ngeen gis nii macha allah mais dafay neex day neex bay bëgg a dee allah léegi dama koy tëj bàyyi ko ba ci kanam donc gis ngeen léegi doore na tamaate bi dagg na donc léegi dama koy ñëw daal di ko ñulu waaw gis ngeen léegi ndawal bi ñor na xam nga ginaar moom lu ko ñoral moom mettiwul mettiwul dara léegi damay éviter mu tasaat mu tas encore moo tax ma koy ñulug instant bi léegi dama koy ñulug nii ñulug bu yem rek bañ mu bañ ginaar gi tas daal waaw comme ginaar moom lu koy tas moom daa yomb léegi gis ngeen ndox bu yem laa def xam ne lii après mën naa ci sote après légumes yi te léppay ñorando te dara du tas incha allah dara du tas ci ginaar gi boo gisee ma def ci légume légume yi ma ràppe nii daggate nii boo gisee ma def ko waaw moom lay sote boo gisee ma def ko c'est parce que togg bu nekk damay bëgg di def di di ci boole ay légume bu baax dafa baax ci yaram dafa baax ci xale yi loolu moo tax te xale moom lu ci ëpp moom boo leen boo tëmbalee kii nu tati te ràppe ko wala dagoo ko duñ duñ ko lekk mais instant bi boo toggee lii ba pare xam nga duñ yëg ne yow def nga ci légume ñoom dañ koy lekk te yëguñu ne lekk nañ légume waaw boobu benn assiette la pour boo xam ne pour xale mën a lekk ci légume yi bu baax dafa baax ci ñoom macha allah léegi damay yokk sotti naa euh, légume yi ma leen dag wonoon noonu léegi damay def poobar ma defaat yokkaat saf-safal yi instant bi épice boo am mën nga ko ci yokk tuuti tuuti rek bañ a ëpp bu ëppee moom du neex léegi moom lay def ne daal di ko yëngal tëj ko nag bàyyi ko mu baar bu baax wàññi sama gaz bàyyi ko noonu mu ñor incha allah en teg naa ndox ma ñëw daal di baxal espaget bi à part waa gis ndox teg naa ndox bu yem léegi damay xaar ndox bi tàng ko defee ma sote espaget bi espaget moom lu ko ñoral yomb na donc yoo doo ko bàyyi ci ndox mi mu bax bax luy yàgg danga koy sote nga bàyyi ko ba ci kanam mu xaw a bax pour nga mën a wàññi euh, stage bu nekk ci ci ci bi léegi instant bi maa ngi daggate espaget bi en trois dagg trois parties bu la neexee mën nga ko def benn wala nga bàyyi ko noonu ba tey ku nekk ak li la neex léegi moom lay def nii espaget bi lay daggate nii kii ko ma leen doon wax rek espaget bi jarul ngeen koy bàyyi mu ñor ba mu ëpp waa na baax tuuti rek nga xam ne dinañ ko mën a sotti après ci biir soos bi waa dama kaa bëgg a sotti ci soos bi la neexee mën nga ko bañ a sotti boobaa yow nga ko bàyyi mu ñor nga bañ ko sotti ci soos bi mais bii dama koy sotti ci soos bi incha allah nga xam ne après dama koy mélanger pardon gis ngeen mu ngi nii di commencé baax. instant bi dangay gis stage bu nekk ci spaghette bi day commencé génn ko defee après mën nga seggi ndox bi seggi ko après mu nga am sa spaghette mën ko sote d'accord waaw mu ngi noonu spaghette baa ngi noonu moom lay togg nii pare sote ko waaye léegi gis nga li ma leen doon wax duma xaar mu ñor xom dama koy kii rek génnee ndox bi ma leen doon gis nga ndox bi ndox bi léegi espaget bi baax na ni léegi dama koy ñëw daal ko segg reer bu gaaw la te reer bu neex la macha allah famille bi bëgg nañ ko léegi segg naa ndox bi des na espaget bi kese léegi espaget bi moom lay ñëw daldi sote ci biir soos bi gis ngeen soos bi dem na ba ngeer na ba ndox bi lu ci des bëriwul tuuti kese moo ci des gis ngeen ñeer na te ginaar gi tasul léegi dama ñëw daldi sotti espaget bi nii ci biir soos bi xam ne reer bi day pare léegi incha allah du yàgg togg bu gaaw la c'est très facile à réaliser macha allah dine bu neex la <coughs> te yomb na yomb na togg bu baax a baax facile na torop pour nga réaliser ko macha allah donc moom lay kii nii léegi sote naa ko dama koy mélanger damay def ndànk ndànk rek comme li ma la waxee damay bañ ginaar gi tas bëgg naa morceau ginaar yi ma daggate gis ngeen ko mu nekk ci reer bi ba tey mu ko yàkkee nga xam ne ba tey ginaar bi dina fa nekk incha allah suñu espaget daanaka pare na neex na saf na mën na nekk léegi instant bi mën na nekk 3 minutes kese mu pare xam ne suñu reer pare na macha allah di nuyu abana yu bees yëpp ci biir seen bi di leen ziar di leen ñaan jàmm di wax ne ñi delluwaat tamit maa leen di ziar bu baax a baax baax di leen jàppale ma ci partage bi macha allah léegi ñor naa moom lay yàq nii léegi espagnol bi ñor na léegi maa ngi koy yàq nii macha allah. di invité yëpp ci reer bi reer suñuy reer pare na présentable na neex na instant bi arôme bu neex lay gilli nii macha allah léegi moom lay dama koy yekk noonu dagg naa tamaate sama tomate dagg naa concombre raxas naa ko ba set daggate ko léegi damay yàq ba pare ma daal di ko décorer tomate bi ak euh, concombre bi instant ku am nen mën nga baxal sa nen rax euh, nga baxal sa nen daggate ko tamit ba tey mu bokk ci décoration bi day tax mu gën a neex day tax mu gën a baax day tax tamit décoration bi gën a présentable macha allah suñu spaghetti pare na bu viande poulet am na solo nuyu naa ñëpp ziar naa ñëpp kontaan naa ci seen seetaan bi ngeen di seetaan vidéo yi maa leen di jaajëfal bu baax a baax baax xam naa ba beneen yoon indi leen beneen recette ci suñu seen youtube incha allah Habiba Balde nekk leen ci jàmm ñëw leen invité naan ñépp ci reer bi macha allah jërë ngeen jëf